yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi waa kay bokk na ci délégation yi nga xam ne ñoom lañ dalal fii ci ci grande mosquée de Touba ginnaaw bi ñu dégloo waxtaan yeeg ndogu ba noppi waa Sonatel muy euh, kii bu am solo ci ci réew mi benn sax seen liggéey feeñu baax ci jumaa ji ndax yi nga xam moom la ñuy addu ngeen di teewlu li koy doxal mooy connexion wala crédit wala leneen ak yu mel noonu ñoom dugal nañ ci seen loxo bu baax a baax ngir bëgg nañ ñoom itam ku dugal seen sa loxo ci liggéey Sëriñ Tuubaa doo leen ci mën bu baax a baax te mel na lu am solo la wàccuwaay bu am solo bu dee màggal bu dee xew-xew diini yi fi am yëpp buñ ci ñëwul rek day feeñ Euh, Mouhamed Ndiaye ñëw na ànd ak délégation bu am solo war a waxtu turu Sonatel ginnaaw bi nga xam ne daayira mu xàddamatul ma dalal na leen fi invité leen ngeen wuyu sa invitation bi ci ni ngeen ko wuyu seeb am solo lool cofu leen ko euh, am ngeen bégte bu baax baax déglu waxtaan yu am solo yi nga xam ne saa su ne waxtu na ci diir weeru koor wi waxtaan yooyu ak thème yu fasanti ko yooyu ak borom xam-xam yu fasanti ko ginnaaw gi itam bu ñëwee ndogul ñoo xamante ni naam am nañ ko waaye dañ ko taamoo defee fii ci barabu Serigne Touba ñen ñi naam xëj na mel nañ ni man amuñu ko te soxla ko ñu mën leen koo jox ñen ñi nag xëy leen ñoo ñoo xamante ni dox nañ ba yoon dab leen fi ñu dugg fi mën fee ndogoo lool lépp ngeen ko sate ko lan ngay yan kàddu ngay wax. waaw ah, asalaamaaleykum wa gannaaw bu leen nuyoo ba pare di sant bu baax a baax sant suñu borom sant sëñ Touba bu baax a baax a baax tey ñu kontaan lool si invitation bu ñu ñëw fi tey si jumaa ji ah, fekkee si ndogul yi mu doon loo xam ne bégg nañ si lool te ñàkk ko teewee erreur la parce que man tey lu ma gis fii tey dama toog ba mu yàgg ma ne sama collègue bii man lu ma gis fii yëpp ku koy par jour loolu laa njëkk a impressionné ma laajte kan moo koy financé par jour donc loolu moom ma njëkk a impressionné donc lu si waay dugal rek euh, néew na loo si mën a yokk yokk ko parce que dama évaluer ma ne fii est ce que nit ñi ñii diñ fi dépensé 4 millions par jour wala 5 millions man loolu laa évaluer man sama sama si si lu gaaw donc mu doon lu nga xam ne man su delloo Euh, maanaam maa ngi koy doog a fekkee mais Sonatel day def at mu jot bu ñu nekkee ci koor wala ñu nekk ci événement religieux yi def ciy génnee euh, ñaqam dellowaat ko askan bi di ko si def si lu bëree bëri si ba si jumaa ji nii si ci euh, weer koor bi ñu nekk nii durant période bi yëpp def na fi benn ay ligne LS yu nga xam ne dañ si mën a def ay diffusion en direct si si ci eh, ba weer koor bi di jeex. donc su ma delloo tamit lu may gën a mën a firndeel te gën ko mën a defendre ñi gën ci dugal suñu loxo tey ji dama toogam yàgg ma xool ndox yi ñuy joxe rek ma ne pour pourquoi pas ñu ñu ngi joxe ndox si événement religieux yi tey ndox mi waroon nañ ko financé ba ma ba ba weer koor bi jeex ñu waroon ne mën a yore distribution ndox bi loolu rek laa sama idée loolu la ma njëkk jox mu doon lu nga xam ne dinaa ko yeggee parce que événement bi euh, euh, yéen a ngi seetaan peut-être si télévision yi luñ ci def si koor gi yëpp distribution dëgg yu ñuy joxe fépp dem leen fa amul fenn fu ñu demul as suñu partenaire bi Marmite du Cœur sa yéen a ngi koy seetaan xëy na si 2STV donc weer ko bi lu nekk def nañ ko si waaye yaakaar naa man su ma delloo lu may gën a ren pour ñu gën a dëggal suñu loxo si lii. parce que bañu événement bi jullisee di weeru koor bi dañ dem dañuy def benn stratégie bu bees stratégie bu bees mooy bu njëkk ba direction marketing ñoom daan daan yore wàll ndimbal yi si weeru koor yi di ko joxe seen bopp léegi ñu décentraliser ko bañ ko décentraliser ñu ne direction bu nekk at fu nga nekk xoolal événement yu fay am at lan nga ciy dox man xëj na dama fekkee wul li daaw moo tax mais su ma ko teeloon fekkee bii lu may défendre si la bokk donc man ba événement bu ma njëkkoon défendre mooy bu nga xam ne xëj na dama ko fekkoon mi daar si parce que servir naa foofu ma défendre ndogu yi am sarsara ba ma am lu ma si am maa ngi ko war a yóbbu sa niki suba wala gannaaw suba. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi